asalaamaaleykum euh, mbokum internetu Dakaractu ñu amoon tey mbégte di dal professeur euh, Malik Ndiaye mu kat ak geussu kat bu ñepp rañé ci dëkk bi tay ñu amoon mbekté tay diko dalal euh, professeur ñu ngi lay nuyu. waaw ma ngi leen di fay man nak euh duma wax fi ay waxu professeur parce que professeur yu bari duñu ay intellectuel ay diplômé lañ dañ nan amna agrégation amna doctorat ni ña man taalibe laa taalibe mooy ku wut xam-xam xam-xam bi nga xam ne dama koy wut nag man damay ji deqi ji deqi mooy ca daara ja ca njulli mbaaru njulli ba suudu njullee ji ba lañ ma fa jàngal bi ma jàngee jàngu tubaab yi ba pare ba ñu jox ma diplôme yëpp doctorat yëpp en France dama ne nag bala may wax ci mbiru sunu adduna bi ma dem ma ji deqi ji deqi mooy damay dellu kokki la ma fa jàngoon ci araab jàng ko ci alxuraan dellu ci maam yi jikko yeeg yëpp bu boobaa nag bu ma ci boolee la ma gëstu ci tubaab yi bu boobaa man maa moom sama bopp boobu kon man professeur la dëgg la waaye taalibe la damay def li ñuy wax laxas mooy boo jàngee ba pare nga dem nga wutiwaat xam-xam comme ni ko sallallahu alayhi wa di waxee nga dem ba Chine wuti fa xam-xam man ci loolu laa nekk waaw professeur tey nga wax ci mbiru xam-xam ñu xoolee jamono ji tey am na ay question yoo xam ne lëmbee nañ bi bokk na ci coowal fédère boobu ñu naan euh, statut bi nekk euh, tey euh, fële ndar ñu bëri ñu ngi ciy wax yéen borom xam dégguñu si yow naka nga gisee statut boobu ndax jàpp nga dañ ko war a mën a déqati sànni fële nañ ma baal waaye ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi nekk ay franc di nëbbutu ñooñu ñoom la war a wax seen mbir man bindoon naa lettre ministère de l'intérieur Abdoulaye Daouda Diallo moo fa nekkoon ma ne bind turu ñep ñi nga xam dañu nek ci bir franc-maçon yi ba paré di neubutu Federbe mom mo fi dougal franc-maçon franc-maçon lan la franc-maçon dafa yalla amul ku ne yalla amul nak yow amna fo jëm waaye Malick Ndiaye mi ñu yar kokki mu ànd ak Serigne Touba ànd ak sëriñ kokki mënul ànd ak yow kon Sénégal problème am du Faidherbe de du Faidherbe mukk problème am mooy Faidherbe dafay ji depuis temps wu Blaise Diagne ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ba léegi nii boo xoolee ci biir li ñuy wax classe politique bi mais ñaata ñoo ci nekk ci biir franc yi Ben homme politique kessé Sénégal mo fi ñëmé wax ne mom franc-maçon la won waré Ils ko xam ngeen ko yeen ñep kan la Ablaye Wade la légui Ablaye Wade bi mu né mom franc-maçon la bayina na ñaata franc-maçon ñoo Ils ak mom ci ñaata fa des manam bo xolé tay télévision Sénégal yi ñi fi muy gauchiste muy trotskiste maoïste communiste muy libéraux muy club nation et développement mu bañ a nekk club ñooñu ñaata ñoo ci nëbbutu buñ wax ba pare bu guddee ñu dem def ci seen affaire bojo bojo yooyu ci biir loge franc-maçonnique kon problème bi nga xam ne moom la Sénégal am ñii la wax affaire Faidherbe wax nañ dëgg parce que man sunu gëstu yi ñu def ñun danañu dem ba banjagara jeli El Omar de El Hadj Omar Foutiou tukulóor moomu ko pulaar moomu ko El Hadj Omar adina bi yëpp ñoko mom ma fatali len ne papay El Hadj Omar Seyd Atumaan tal mom ak ñu bare Cerno Souleymane Bal ci la bokk ñooñu ñoo def révolution bi nga xamne mom moom wax révolution Torodo révolution bobu 1776 mo jiitu révolution France kon ñun nañu def très attention statut boobu dama cee rus sax ndaxte ñaari at a ngi nii muy 2017 wala ñett 2017 bu leen ko fàtte de statut boobu dañoo toog guddi rek benn tempête ñëw rek ni ko fuuf mu daanu ci suuf kon statut bi yàlla daaneel na ko ba bare mais li gën a garaaw du loolu li gën a garaaw mooy El Hadj Omar Tall yàlla na ko yàlla yërëm El Omar garmi mi la ndi magu neddo ko golle e balle ko mooy El Hadj Omar tal El Omar tal bobu doomu Saïd Atoumane Tall mais ñun la doon liggéeyal El Omar dem na Karta amna lu mu fa liggéey ba mu waré dem Massina la indi Faidherbe Faidherbe mo ray Omar légui naka nga mëna jël lycée Faidherbe Saint-Louis nga né légui dama koy tuddé El Omar ba paré bàyyi ki Omar ci ndar kon nak di sénégalais yi nga dañuy sen waja waja waja waja waja ba politique muy opposition muy pouvoir muy société civile ba ci franc-maçon yi man bind lettre ne na lettre euh, sama way alingui Ngouille muy sama mbok na génne touru franc-maçon yi bés buñu ñu touru turu franc-maçon yi danañ xam nen yi nga xam ne Faidherbe moo fi nen jaar ci Blaise Diagne bu boba lh Omar buñ ko tuddewul aéroport international Blaise Diagne danañ ko tudde lu day ne kon dama bëgg nañu jiital xel jiital xel moy bala ngay nekk foofu di waja waja waja ci affaire statut da ngay seet lu waral lu bon lu waral lu bon mooy franc-maçonnerie moom moo yàq Sénégal moo yàq politique bi moom moo ne yàlla amul kon nañu wax ne Sénégal benn confrérie boo xam ne dafay nëbbutu moo fi nekk boo demee Gabon franc-maçon yi comme Faidherbe bi mu fa ji mais ñooñu nëbbuwuñu am nañ seen siège

fofu la coow li commencé ndaxte ñun niñu seigne Touba yaré niñu seigne Touba xelale ba université yépp d'accord ci tay dans le monde entier moy liñuy wax madlabul fawzayn liñuy wax madlabul shifaay waaye xamna nañ ci dellu ci bu ci kanam. waaw bala ñu wax waxati madlabul fawzayn muy ay patch yu am solo yow ngay gëstukat kat bo xamné kenn naataarul sa xam-xam.

ndaxte maam yi dañu ne kii du dugg mukk ci biir sëg yi kooku la Blaise Diagne la kon wax bi mooy nanu jéem a seet ci sunu histoire li nga xam ne Iba ci am leeral na ko document yi am nañ ko ci ni ñu dugalee Blaise Diagne ci biir framation yi du fii de

kon li li nga xamné ne dal Sénégal moy franc-maçon yi ñëw japp Serigne Touba yóbbu ko nañ la ko netali dé le 5 septembre juróomi fan ci mois de septembre 1895 lañu wo serigne sëriñ ñu ne léegi nag ku ne signé né laïcité yalla amul Serigne Touba ni leen jox leen ma keuy jox leen ma. stylo rek lu mu bind fofu il faut que adina bi xam ko ikhlas la fa bind qul huwa allah ahad lol la fa bind ba mu mat ñu jël ko yóbbu ko ci gaynde yi biñ ko dugalee ci gaynde yi la xawla wala qawta gaynde yi dañoo tok su jot jébbalu ci serigne bi kon lolou motax federbe duñ ko ragal tay duñu tittel tay ku melne ne muy Blaise Diagne duñ ko ragal tay duñ ko duñu tittel tay ñi nga xam ne la ñoñu nen bañu yak senegal tay liñ leen di ñaan moy nañu def ni Ablaye wad def manam nañu parce que muy franc-maçon yi ah ñom ñoo tuddee sen bob franc-maçon bu ne yow yoonu jup nga jaar mais yow looy butu. kon franc yi ñun ci daara Koki li ñu jàngal lan la wa yahrumu alayhil kadib kadib mooy fen dañu aaye fen riibat mooy di jow namimat mooy di tuumaal nit ci dul dëgg wala kibru mooy di def ni kon li ñu jàngal ñun dañ koy jëfe mais loolu la fi El Hadj Omar Baye loolu la fi Ahmadou Bamba Baye loolu lañu ñu malik jàngal kon dama bëgg nit ñi am dal rek ñu def ñu affaire bi bu baax du question statut dépasser na statut ñu Sénégal ba mu nekk ci guta tay ji ñoñu dañu néwon dañuy l'islam bi yak diine catholique bi yak kon ñoñu l'islam rek Nous lañ bëgg yak muy catholique muy protestant muy luthérien kon Sénégal nanu def ndànk ñiy wax nag nanu discuter ci statut bi wax nañ dëgg kon <laughs> président camarade Macky nañu jéem a seet affaire statut bi li nga xam ne moo ci am solo mooy jikko ji nga xam ne moo ànd ak bi kon waaye bu fi kenn nekk fii di xeex di sagante jaru ko ndaxte li ñu jàngal mooy nanu boole zahir bolé batin bolé fiq bolé tasawuf manam li ci bir li ci biti li ci xel li ci xol ak li ngay jëmmal comme ni ko sëñ Abdoulaye di waxé kon nañu def attention bu fi ken créer problème ndax statut ndax problème bi du statut bi waaye jikko ji nga xamné mom la statut bi ji ba mu yaq rew mi. waaw kay ba nga ne yàq boobu sax dafay tax da ñuy permettre ñu aborder benn question bo xamné ne euh, ñor nañu mu pàcc pàccoo bi ñu commencé def littoral bi yow amu ben ouvrage bo xam bindo nga ko Sénégal ouvre la république ak éthique ceddo société d' accaparement accaparement bi moy ko waxee yow loñ mëna wax tay tay ci euh, littoral bi yow. gannaaw nga nga jot euh, euh, problème bi affaire franc-maçon yi ma doon wax sànq muy Faidherbe ñooñu ñoo indi di pàccoo alalu réew mi lu tax parce que dañu ne yàlla amul. ñun ñi nga xam ne dañu yar ci diine catholique yar ñu ci diine protestant yar ñu ci diine yëpp ñun dafa am lu ñu gëm diine catholique bi dañu def ndànk de <laughs> laa nu farriqu bayna ahadin min rasuliin loolu li mu tekki mooy ñun ñëpp ñoo xam ne yàlla leen yónni muy Ibrahima nekkoon juif muy Insa ibnu Mariam catholique ñooñu ñëpp dañu jël li ñu indi kon laa nu farriqu bayna ahadin min rasulin kon moo limay li may wax ni ci gëm catholique ci la bokk protestant bi ci la bokk léegi nag ban jikko mais ñi fi nekkoon muy waa siin maada sinig ni di waxee wala roi du suy simbili mbaay mais ñooñu du ñu dem di jël alalu nit ñi Alburi Njaay defu ko Buuna Njaay defu ko Lat Joor defu ko lu waral lu bon kon ñi nga xam ne dañu dem jël alalu réew mi jikko jooju fu mu jóge jikko franc-maçon baa kon kon Faidherbe moom la gaañ jëmmal ci affaire littoral bi léegi nag ñi nga xam ne ñoom ñoo waral leeral loolu mooy camarade président

léegi alalu pêcheurs yeeg yëpp élevage retraités mais nit ñaa ngi koy jël kon ñi nga xam ne dañuy xëccoo suuf su littoral bi nañu def ndànk ñu jéem a seet lu ñuy def ba li nu moom li nu bokk ñu seet ko am na sax ñoo xam na ñu ngi wax rek di waja waja waja te ñoom tamit ci la ñu bokk am nañu lu ñu tibb kon nañu def attention def ndànk moo tax ma ne président camarade Mimi Touré Mahmoud Saleh Mor Ngom ak ñëpp un premier ministre tout de suite premier ministre bobu gouvernement bobu mu dépassé fukki nit ak juróom wala juróom-benn Bougane Gueye Dany defoon na fi calcul bu graw bu des ministères ministère yëpp soxlawul muy 30 soxlawul muy mat 40 fukk ak juróom ben rek ak yooyu doy na loolu ko gouvernement bobu ak premier ministre bobu. dana mën a tax nit ñi dal li dal Lamine Diack ak li dal ay ñoom Aliou Sall ak ay ñoom Bougazeli ay ñoo gën xamul loolu boo ko bëggee saafara da ngay delluwaat comme ni ko sëñ Abdou di waxee ci sa ay tànk boo xamatul foo jëm da ngay delluwaat say tànk mais delluwaat say tànk mooy lan foog nga dugalaat ci diine dugalaat ci diine mooy boo xamatul foo jëm da ngay laajte wa yasalul ulama ويقتدي بالمتبعين للسنة محمد صلى الله عليه وسلم كن الفوق نغا دلوات تي لو خامن گم نغاكو في رك ارتيكل 2 ارتيكل 22 ارتيكل 25 ارانجي وونو لينو ارانجي موي نانو ديفرات ديكو ديفرات ديكو موي كادو بو دوينو لوا كادو بارول لوا la moy loi non كن bu sommes yàlla nous góorgóorlu rek Inshallah, commencé waxtaan waaye muy suuf si muy géej muy élevage bi muy muy kir bi muy bi muy pétrole muy gaz muy leneen ak leneen ak bu premier ministre boo gouvernement bu leer dana baax ndaxte nañ waxante gouvernement bi nga mom le Covid bi danel dégg naa sax am kenn ku ci daw mom dem France xaw ma Amérique ñuy wax ay koku dafa daw koku donc lolu bu demee ba am dafa tekki erreur dafa am parce que gouvernement bi PDG yi au conseil élection moo leen fi taxoon a kon président Macky Sall il faut nga analyser bu baax situation bi informel bi liggéeykat yi retraité yi ñi nga xamné dañuy dan sen doole pour défar sen kër yi école yeeg yëpp tey jii fi mu il faut nga am ko xamné premier ministre lay nek, gouvernement bu dal mom mo nara défarat affaire yi waye yow mëno ko tout seul. professeur kon euh, ñu danalé fofu ñu euh, Dakaractu mu lay remercier euh, kon mbokk internet yi kon fofu lañu ñuy yemale jotaay bi ba banen yoon ñu ngi leen remercier jaa jëf.